bu dee bii nii bii mooy Getzner Supermanium Gold bi. waaw bii moom macha allah. mucc na ayib rafet na trop. am mhm. na lii du doy la. Mhm. lii nii boo ko buggee fi njaay Getzner rek nga mun a ñëw. gis nga ko bii mooy Bembagé. Mhm. ba léegi Getzner waa Autriche ñoo ko liggéey gise nga ko. rafet na trop tarkala am na ay couleur jigéen am na couleur góor yi mooy gis ne bi moom garaaw na de garaaw na lool am nag boo buggee dégg rek ah. yaakaar moom moom boo ko yitewoo boo ñëwee ci Ndiaye Gisner nga am ko di am la yaa ma gën a xam góor yàlla yi góor ah. ah. na trop mais couleur yi bi dafa jigéen yi la bari mais moom jigéen yi tax a jóg yóbbu daal ñu ko di mhm. ak ay mbagéris ay boro pir xa yëpp dañ koy jaay ak ay cuub yëpp mhm. waaye bu moom bu dee xeetu sañ si xeetu baax maa moom Guy Gi Djilass Nior alias Sène boros el bondi ak weneen gaan boros à gauche Youssou Diofior le 6 février 2023 Daaru Nimsaat Babou Sarr xaw ma ki muy bëreel. voilà. mais anam xatoo monsieur le maire yi si Diop dara dara muy defagun fa tamit c'est une lettre de soutien. celle qui jege interpellé tenait ini ñoom ne mbaa ndax loolu jàngaanum. madame le maire euh, Ndeye Khady Fall Xome monsieur le maire aussi. Euh, Assane Babou Sarr.

Jeune Bob ak Boros alliance Jeune. El Bandi Boros à gauche Ñoxor à droite. Ñoxor dëkk Mbula Xaar dëkk Marfa Bako. Noppi waaw le andun rek e miis fe ke doone nan drapeau fe poids lourd keke andoona yee den na nqooyel ndiiki boros ak ñoxor boros am na ngam million cinq cent fena maaf jang ka jom ne xana jeg sept cent quarante mille fena yen ka finale a jeg quatre cent trente cinq mille demi finaliste ke kiino kiin xanu jeg cent dix-sept mille quart de finaliste ke xana jeg xureena vingt-deux mille cinq cent donc a cafate andoona yee a ndeta bo demi finale ke ndewe ke na maafrel donc andoona oxena jangkan xana jeg 345 oxena yen ka final 245 deux demi finaliste ke kiino kiin xana jeg 100 boros ak ñoxor ñoxor ang koy ronu xam o boros ang koy fe a jega 200 francs euh, vaincu demi finaliste ke kiino kiin xanu jeg 20 000 voilà poussière fe andoona yee 280 boros ak Tidiane demi finale encore 25 115 000. Donc, demi-finaliste, qui vous voulez, 10 000. Voilà, hier, nous avons aussi volé le club de Diofio, nous avons des vice-champions du Sénégal, nous avons présenté avec Saltigui à Sénégal un tournoi fait à été de la Ligue des Champions, Mana Tunisie, et nous avons commencé du 13 au 26 mois de mai mi qui jofiora fait de ndamten parce que deno mobilisation fe de boros tagnoxor pour 17 millions pour des mbago mbi voyage fe adonay ndaplir ke ten confédération fa simtu 17 millions ke nak xan fédération a waruna ministère fe fi waruna nda ino aussi i mbaran lan taqo illa ta sahle fof ndibal idam idamten daha boorata nden surtout e aɗona den dere rewum sahle a ande kat a mbaɗanɗam yam rewanede nden an jalla baaɓi sidrayake a mbaɗum ɗo présentat jofior arrondissement région de faki mais aussi senegal tere une première donc il lance un appel xama kuma fay nak te ko aɗono joka jal ko jal assalamu aleykum wa rahmatullah e ke gere encore annonce euh japp nga sangam ɗum morom le grand promoteur de Ngoundiane, Atena, a organisé à, du 18 au 19 février à Bourg, c'était Mourahenka au terrain Sainte souf Voilà, euh, 10 bœufs, et poids léger et 3 bœufs. Et poids lourd, deuxième soulevé avec 7 bœufs, C'est Bedounik. C'était au terrain Sainte souf du 18 au 19 février. animation Maodo Maodo Faye et Ndeye Fatou ok merci voilà. Euh, Cey Mbayang. Tidiane Brosse ak Ndor Alias Sène dem nañ huit ans ba ñëw gaa a ngi bugaan laa ilaaha illallah Babou Sarr Brosse Brosse fekk na ko à domicile teg wante ba aca tig asupalu bi commencé na combat soog combat bu war a mun a neex Papa Sossokh moo ndof Mbaye Diop Palmarin di bëgg waa ndof sama grand Souleymane Sarr Lamine Seye war le grand champion bu naa ma caam Mbaye Diop bu Palmarin bëgg Mansour Seck Mansour bëgg naa la waaye Babacar Seck maa ngi lay siyaar tey Abdou Karim ak Mbaye Diop waaw Mbaye Diop daan Abdou Karim la ilaha illallah Boy Maron Ngagne Sène ren daje nañ fële ca Zawal Ngagne Sène moo ko daanoon ci ouverture de saison bi dañu dajewaat fii ci Diofior dem nañ huit ans nag ba Morone am na ngemb ngañ jàppul a koy wër-wër loo Ngagne Boy bu Pikine wala bu Fissel Ngagne Sène bu Ndiaga Niaw arbitre atte na avertissement pour Boy Marone arbitre bi at ngañ mayu ko mu xalaat jël la tànk booy Maroon. Ndeysaan wee teet teet teet teet Quinze Ndawaan Papa Gueye yaa ñi yàlla salaano yàlla ya basir le corni ni wal banja quart de finale Papa Gueye Joal Kees bu Kees laa ilaaha illallah taxawal la ko dóor Papa Gueye rëcc c'est tët Kees Papa Gueye Papa Gueye dugal na ko naa Papa Gueye Thiès a koy daw daan na ko wala gënu nañ saako yi gënu nañ saako yi amortissement pour Thiès et 15 Papa Gueye koy dajale jaay doole caxabal ba Papa Gueye daan na ko doole demi-finale poids lourd Papa Gueye Sokh Papa Gueye Papa Gueye bu Joal ndeysaan dëkk Aliou Sow gay naa ko gay naa ko la Philippe maa lay siyaar waaye Ibrahima Ba wala Gallo borom Sifa TV doomu dëkk maa lay ziar di ziar say àndandoo ñoom Papa Dame Presse ñoom Ibou Khalil di leen di kontaane naas bi ngeen di def ci commune Joal Fadiouth ak li ko wër Ibson borom Ngeeñan nee naa leen télé boo câblewul baaxul fil boo brassewul normalul boo joxul image leer la wul ngeen ñan ba Ndofane ba yaa ko fi am yaa ko fi def kookoy Galo Ibrahima Ba Papa Gueye Sosokh Sosokh daw na jël ko Papa Ngane Modou Faye la seen waaye Ibou Diaw Joal maa ngi koy bëggee de rakku Baye Ass xaritu jinne yi Baye Ass maa ngi koy siyaar bu baax a baax Serigne Ndeye Fatou Adama Tali suñu yaay ji Ndangaan gis naa ko fi waaye tamit Antoine Sène borom ñaning borom mbaaling borom bërit ko bi gis naa ko fi maa leen di ziar doon samay papa lañ Kayser Sall moo doon as doon demi-finale finale Babou Sarr Diofior Brossel Bandima Fafako finale poids léger fekk si ko à misil, fii ci Diofior ya rawatina quartier Daaru Nimsaat ba tey demi-finale yi ngay seen Moona Ndoos wala Salmon Papa Gaye Sossokh ca ginnaaw barkay ñapaasi ma leen di maanan rima nun e yam doole jara nga senene ko ba tànk salmon salmon rëcc na Babou Sarr Boros nga sen Boros eh eh Babou Sarr de l'avertissement ñaari demi final ñaari demi final poids lourd ak final boole noo koy boole ci benn géew bi ak table bi ak commission bi nañ dimbale seetaan kat yeeg caméraman yi Sossokh Papa Gueye Papa Gueye jël na Sossokh war na ko ndam Papa Gueye doxal fi ngay filmé Papa Gueye ak Sosokh Ndeye Sène ndax ñoom Salmon Boros Boros Babou Sarr Boros Boros Babou Sarr kenn xamul li muy filmé xamoo fi ngay jël fële tamit penalty am na fa. Papa Gueye Papa Gueye daan na Sokh Sokh wala gënu na Sakuya Papa Gueye rate na penalty cey lambu Diofior avertissement pour Sokh Sokh jël amul nañoo gënu Saku Boros ak Babou Sarr Boros ak lim dalal fiyan na beef Boros Babou Sarr Boros Babou Sarr yi puus Boros génn ko saaku ya wala ñu nga ca wetu ya Boros génn na da ngay jël avertissement yaa ji ma jiyaat te sant yeeg daal loola dem Souleysane Djilass semoga grand la maa koy siyaar kalau Elias a ndeɓandoong ka andoona yee ka angal na te a lalta di bëgge waa Samba boros daw na jël Babou Sarr rëpp nañ am boros a besar. Habib naan Samba Dia bëgg naa ko Saadi bu Cissé la gendarme doomu Samba Dia la maa koy bëggee boros bu Abou Sarr te bi final dul yóbbu Nita Papa Gueye ak Sossokh Babou Sarr at bi sifflé waat na Brosse Babou Sarr cey bi final combat bi Brosse daw na jël ko Babou Sarr daan na ko Babou daan na Brosse géew gaa ngi toj Adama na Babou Sarr daan na notre finale entre le 7 janvier et le 7 février. Doudou Sané. Un goat comme CR7. Doudou Sané ngi noonu. Hey Sané. Hey waay doole. Déjà daa am combat. le 5 mars Doudou ye ale rajo fiyoon bir na fo bir na jub kër na xal ka te Doudou Sané fit ma ñaata wo yaase fi daaw fële ca terrain ba Ngagne daan lambu Daaru Nimsaat ñu dajewaat tey le 6 février 2023 ma fàttali leen le 6 février 2022 la Sénégal jëloon Coupe d'Afrique le président Babacar Mbaye lambu maa siyaar waaye ay war na ko ndam ngañ Abdou waxal Diouf bëgg naa ko ngañ yenu Papa Ngane bañ na de Modou Faye la daan na ko